siyaare si sëñ bi. mu ñëwoon nag siyaar si sëriñ bi. léegi lañ jóge ci sëñ Cheikh léegi lañ jóge ci sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir. ak sëñ ak sëriñ Sidi. ñu si fii ci sëñ. ñu daal di àgg si fii ci sëriñ Basirou moom sëñ Abdou Khadir. di nuyoo président. ñu ngi lay indil nuyoo président. sa xarit sa xarit ba sa soppe ba. mi ngi lay nuyu bu baax. nee na mi ngi lay nuyu bu baax. di la gërëm di la sant ci taxawu bi. mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci taxaw bi. ak ci ñaan yi. ak ci ñaan yi. ak taxawaay bu rafet bi ci diine ji yëpp. ak taxawaay bu rafet bi ci diine ji yëpp. ci réew mi ak ci réew mi. ne woon na ne lu jamono ji xat-xat. ne woon na lu jamono ji xat-xat. depuis àjjuma mu ne ma bu na xëy ñëw ci màggal gi. depuis àjjuma la ko wax ne ko bu xëyee na ñëw ci màggal gi altine. ndax bésu sëñ Abdou Khadir. ndax bésu sëriñ Abdou Khadir. bés bu ñu fonk la. bis bu mu fonk la. ndax sëñ Abdou Khadir li doon ci diine ji. ndax sëñ Abdou Khadir li mu doon ci diine ji. ak li mu doon ci kër sëñ Touba. ak li mu doon ci kër sëriñ Touba. may nuyu sëñ Sidi Ahmed mu sëñ Abdoul nee na mi ngi nuyu sëñ Sidi Ahmed moom Sidi ah, ah, sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh. mi ngi feddali kóllëre mi ngi feddali kóllëre gi. defe ne bëri na lu ñuy daje ci màggal gi. nee na defe na ni bo bëri na sox lu ñuy daje ñoom ñaar ci màggal gi. ci gi. ci màggal gi. di firnde diggante sëñ Abdou Khadir ak sëriñ eh, nee na loolu nag di firnde ci diggante sëñ Abdou Khadir ak sëñ Abdoul Aziz Dabakh. mi ngi lay sant baax ci kóllëre googu muy dundal. nee mi ngi lay sant bu baax ci kóllëre googu ngay dundal kon sëñ bi ñu ngi koy gën a dénkaat suñu bopp. sëñ bi nee na ñu ngi lay gën a dénkaat seen bopp. di gën a sàkku seen ñaan ci réew mi. nee na ñi ngi sa ñaan ci réew mi. ak taxawaay bi ci président de la république. ak ci taxawaay bi ci président de la république. ku ne xam na yéeneem ci euh, Touba. ku ne xam na yéeneem ci Touba. te dara dakku ci te dara du ci mës a dakk. te dara dakku ci te dara du ci mës a dakk. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. ak dayo dëkk bi. ak dayo dëkk bii. président nag yàlla dimbali na ko. président yàlla dimbali na ko. ndax ci histoire. ndax ci histoire. ki defaral autoroute bu ñëw defar autoroute bu ñëw ne moo mooy mbedd 30. ak mbedd 30 bi nga xam ne moo ceinturé dëkk bi. loolu rek doy na sëkk ci bilan. loolu doyoon na sëkk sax ci bilan. ci jëmmi boppam ci digganteem ak sëriñ Touba. ci jëmmi boppam digganteem ak sëriñ bi. kon loolu mat na sant yàlla. ne loolu mat na sant yàlla. moo doon kaddu yi ñu ne nee na lii moo nekkoon kaddu yi ñu ngi lay sant bu baax. ñu ngi lay gërëm. jërëjëf jërëjëf Mbacke. sëñ Abdoulaat moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma. ak mbokk yi ànd ak moom liggéey yëpp nee na da koy def ci turu mbokkam mi ànd ak moom liggéey yëpp ci cant guñ la ameel moom mi wax na ko fu ci télé yëpp ndax kenn ci ñun mënulaa fay da da danga leen a may ñuy liggéeyal sëriñ Touba ndax yow la sëriñ bi woolu yow la sëñ bi dénk kenn ku ne ci ñun moo la woowal boppam jël ci ndénkaan yooyee ak te googee copp ca dara comp ca dara jox la ko kon ñoom ñi tiyaaba juñ ci am mbake yow mii la de kon yaa baax yaa bëlbatiku di leen santaat waaye ñoom ñi ñoo la war sant de mbakke jërëjëf kon ministre Abdou Karim Fafana bu baax ak boolem délégation bi nga àndal te ñu mañ cee ràññee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga xam ne ñaari cër la fi amee ak gouverneur de la région de Diourbel ak préfet ak sous-préfet ak mboolem ñi ngeen ñi ngeen ànd ak ñëpp di yóbbantam nuyoo ci président Macky sàll ci yónneent bi mu yónnee te naka jekk mu di ko def tey sax kenn séntu ko woon ndax xam nañ xataay bi mu toll bu yónniwutoon ndaw it dañuy jàpp ne lu jaadu la. ndax yéen a génne ci ay xew-xew démb mu xat kon bu ngeen ñëwutoon it du ci yokk dara du ci wàññi dara kon ñu ngi ko yóbbantiwaatu nuyu ak cant ak ngërëm di ko sant di ko gërëm di feddali kóllëre gi nga xam ne yàlla boole na ko suñu moom muy loo xam ne xam nañ ak jàppam ci ñun te lépp mooy yoon wi rek ndax ñun ci yoon lañuy jàpp ci li ñuy bàyyee. waaye xam nañ cër bi nga xam ne sedd na ko seex moom du Mouhamadou Mountakha ci lépp loo xam ne yitte la di yitte yoon wi lu ko sëriñ bi wax lépp lu mu ci man dana man def ci lu lu mënut sëriñ bi ci boppam itam yàlla def mu ëmbal ko ak cofeel boo wax ne ko bu yàggut nee saa su ma gisee sama cofeel ci moom de dolli ko loolu nag yaakaar naa mënee su ko wees ci kàddu kon ku am loola dooni sekk kon ñu ngi koy sant di gërëm di ko ñaanal bu baax yàlla dolli ko kattan dolli ko wér ba mottali ab liggéeyam di ko xamal rek la ma sëriñ bi yónni woon ci moom 2019 bi ñu door a falu ci ñaareelu mandat bi boo élection yi jàlle yoon yoon yu mu njëkk a toog ma sëriñ bi yónni wax daf ma wax ne ma la ma ca maa nett nag laay wax boo demee nee ko lépp lu mu daa def ci dëkku Touba ak njabootu sëriñ Touba lu mu ci daa defe na ko dolli te te ci séntu dara lu may payog Sëñ Tuubaa lépp lu muy lu mu daa def ci biir réew mi tam ak ci mbokk jullit yi ak këri diine yi lu ci daa defee na ko dolli te see séntu ci payog Yàlla suñu borom ñim seqal wàllu adduna gi rek lépp lu man ci masla ak rafetal seen diggam ak ñoom na ko def ndax loolu mooy li koy may jàmm te yegg ëllëg loolu mooy la ma ci mën a moom bu ko déggee na xam ne daan na nekkoon nag man sama jëm bopp nag sama aajo faju na ba soxla bëgg bëgguma dara ba ma ko ko waxee moom ci boppam wax ja sori na ci moom loolu ba ma xam ne yëg na ko kon loolu daanaka mooy mooy kaddu yi. kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm leen sant yéen itam Abdou Karim ndax yow itam lépp nga ci kër gi ndax. jaaree ci daayira yi lépp lu taal bi def def nga ko fi ndax may fàttali bi nga toll ci jàng boo tàmbali ko liggéey sax bu mosaan ñëw Dakar lu mu xat-xat da nga góorgóorlu ba togg ay ñam sax indi ko fa loolu yàgg na kon lii lii indiwu la ci yëf te noonu nga ko defee ba léegi gisuma ci dara lu ci sopp ko kon ñu ngi lay sant yow itam gërëm ci sa taxawaay di ñaanal yàlla gën laa dëgër kattanal la. ndax xam nañ sa yitte xam sa taxawaay xam sa positif boo xam ne lu dëggu ci yow la di jaaxal cant gi ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mii ma ko ko seeraloon keroo rek ci yitte ma taxaw daanaka sant ko sax day mel sant sa bopp la rek koy gën a sant rek moom mooy guru lii itam liggéey bi ñu seq di liggéey suñu tubaab bi seetla na sama digg moom ci lépp lu ko ci war ak lu koy ñoŋal ak lu koy baaxal. ñu ngi ko ci ñaan ci barkeb Serigne Touba suñu borom gën ko cee dëgëral gën ko cee dolli xel ak xalaat ba liggéey bi di gën a jëm kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah